الله يا الله والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي رضواني وتمكين بوكي تيليسبكتاتيري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو لي نيو نيو جوليت اك بوك mun ko baaxoo dafa ak talaatu talaata ju nekk ju nekk waxtu ci waxtu wii ci seen seen euh, la euh, émission pencum islam la seen sénégalaise euh, ngeen di ko ànd ak seen mbokkum taalibe oustaz Cheikh Awa Balla xam ngeen ni ci kàttanu yàlla ginnaaw bu mu ziyaare Cheikh Sidil Muxtaar ziyaare kilifa diine yëpp jaarale ci jëmmam ju tedd jooju ab ziar ak nuyoo mu jëm ci képp ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah di siyaare itam mbokki teel bi yëpp nuyu wëllër yi ak xarit yi nuyu aimatul masajid yi ak borom xam-xam yëpp ñu ngi woon xam ngeen ni ci masalikul jinaan ba muy waaj a jeex di woon ci cat la muy téere bu am solo boobu ni ma ko baax a waxee muy sëñ bi waxoon ni takkaadu toog ni an jëmee soxfi waaw tudd Masalik doy téere yëpp waaw te Mbàkke doy na ko sax euh, yàlla dogal xam ngeen ni léeg-léeg dalal kenn ci kilifa yi walla kenn ci boroom xam-xam yi wala kenn ci euh, këru diine émission pencum lislaam la nu ànd ak moom waxtaanee kër googee lépp di diine lislaam euh, tey nag ci kàttanu yàlla ñu ko baaxoo def ngi dalal sunu wëllëre sunu xarit sëriñ Silla Silla Baye Fall li euh, nga xam ni xam nañ ko ci liggéey sëriñ Touba xam ko ci taalibe waaye ràññee ko ci biir kër taalibe Serigne Touba bu mag ba muy kër Cheikh Ibra Fall Babou Mouridina mu ngi waroon a ànd nag ak sunu Serigne euh, xam naa mi ngi ci yoon wi Serigne Abou Madiana Mbacké Abou Madiana bu sëriñ Khadima Oba lan waroon bokkal jataay bi xam naa jombul xat-xat yi moo koy téye ci yoon wi waaye war waratul sori waaye bu agsee rek ñu xam ni li ci ñu ànd kàttanu yàlla loolu nag sabab bi mooy waxtaanee bis bu mag bu rëy boo xam ni bu am solo lu bisu lislaam bisu Sénégal bisu Afrique bisu adduna bépp waaye bisu jullit bépp ñu bis baan le 9 mai ci CICES kan lañ koy defal ak ku ko def ku ko taxawee ak kan moo waral ñu taxawul bis boobu muy Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Khadim Awa Ba mu Serigne Bara mu Serigne Touba taxawal bis bobu ñu nekk e édition euh, mu war ko taxawalal Cheikh Mawlana Lamine Bara Mbacké ñu ko am ko njabootu Serigne Touba gep am ko islam gep am ko xarit yi wëllër yi ak bokki taalib bi dawaay it yëpp waaye itam ànd ko itam ak bokki bopam am ci ndigalul ay kilifaam le 9 mai ci kàttanu yalla bis bobu lu ñu dëgmal parce que yéen wat jabar jël islam ja doomi Serigne Touba ja lu doomu Serigne Touba ci Cheikh Mawlana Lamine Bara Mbacké mi nga xamni tay muy wajuru Cheikh Sidi Moukhtar mii di Serigne Touba boobu lañ dëngal ab ah, bis bi nag euh, at mu jot am na kuñ koy tuddee waaye di ko duppee kenn ci njabootu Cheikh bi ren nag egsi nañ ci Serigne Souhaïbou bu Mbacké lañ ko tuddee waaye ci Serigne Bassirou Mbacké ki ñuy wax Serigne Bass ko ñaar ñooñu ñëw seq bis bi Serigne Bass alxames jëla moom Serigne Bara euh, bisu gaaw bi journée bu mag bi duppee sëriñ Soxna bu Mbàkke Cheikh say wax ni sëriñ Baro bu ñu ànd ak njaboot gépp liggéey bu ci loxoom ñu ko ba mu am ko nu ko bëgg kon sëriñ si la sori euh, sëriñ Abdu wax si wul ñu nekkoon ko rek di moom taalibe yi euh, mu ma jox bi mu yi euh, waat mu ci wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ si xaw maa ngi siyaare bu baax di la nuyu nuyu tedd di am mbég ci jataayoo gi ma jataayoo ak yow fii di la xamal ni sëñ Baara day bes ko dee màggalal bis dafa yell ko ne màggalal ku ne yell na walla rawatina sëñ Baara ndax ndaw ñi dañ koo xamul hmm? waaw ba mu fi jógee ak tey daa yàgg lool tey boroomi njariñ di boroom kóoluteef di gëm ak boroomam kon bu sëñ Bas xëyee wax ni sama maam laa bëgg ñu fàttaliku ko ba def ko fukki at ak benn wala fukki at ak ñaar woo ci bokki taalibe yi woo ci bokki boppam yi ñu ànd ko moom ba mel ni fi mu ne dañ koo jël ci ay loxoom mu féete ca ginnaaw loolu ak bëgg la yitte la ak dox la maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa tele bi di xam le ni sëñ baara moom ku xëy ci moom suñu borom gont ci yow moom rek la sëriñ tubaa wax nii Muhammadu Lamin yàlla nee na ma mani la ko ànd ak yow daxalal jàll ci xëy ni sab ginnaaw ak sëriñ Tuubaa wax na ko loolu nan fexe ba suñuy xool ànd ak moom fu waay man di yeewoo ak kër gu man di doon cofeelu ak sëñ baara sa digganteeg moom wala nekk sa digganteeg sëñ baara xam nga lu tax ma xam ni ku rëy la guddi gi mu ñëwee ca fajar la siara Rafal la gaña am ngërëmul sun borom sëñ Tuwaale ni Ibrahima ya ku fi ne dan gi ñew biig Mouhamadou Lamine andal leen seen ngërëm ci yalla dan ku gane aduna nak am paraanam jeexul mu ngab ngërëm di jox ko tolli Cheikh Rafal ak sëñ samba Diop Sam ñom nan lu taxam ko kana ma ngi ñaan sun borom mu tax ci barkeem yokk te xellu ni ci ay ay leeram lon jota japp te yàgg fi ba keneen a koy fekki maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Touba muy digal tax mën ngaa liggéeyal suñ bi baax na lool waaye liggéey ko ci kaw digal bi moo gën waaw kon moo gën loolu laa bëgg a wax waaye donc bokkoon ci liggéey si ñu fàggaloon boppam feeñ ci loxol Cheikh Sidi Muxtaar dana fi yàgg te wér dana ko ba naal yeneen yéen yéen ngeen man ko liggéey booba te loolu dogalu suñu borom la rek mu def lu leen ko ndax keneen ku mu ko def loo leen mu def ko ndax. dëgg la waaye mbakk yi tey ñu ngi jiite bi euh, sëñ bi jiite waaye lu ngi jiitu te da ngay mat sëkk bee. dëgg la moom moom ala tuliyaane du kenn sëñ bee mooy jiital mooy doxal kon noonu la bu ko defee comme jiital la ko yàlla ko yàlla jàppale doole jàppale booy fal ko ndax ñaan bi amul boobu ñu ta yàgg waaye ñu ngi ci bis bu am solo di ci nuyu euh, sama wëlëri kenn ci ma Aziz Ibrahima Faye

ñépp ñu siyaar leen fédération Sirul Mason nga xam ne ñoo ko bis bu mag bi lépp sëriñ Baara ñu si Abdou Lahad Baara si da amet suñu Cheikh Doro suñu Mbacke Anta suñu Bass suñu Moustapha yi ñëpp ñu ngi leen di ziar bis bi ñu ne ko moom seen bisa euh, di bi nga xam ni moom mooy président euh, euh, bi nga xam moo comité de pilotage moo ko jiite ak ci mbaaxam ak woyofam di ko ziar bu baax di wax rek ni liggéey bi liggéey Serigne Beye bi Serigne Beye bu mu tànn

gis ndax moo toll toll ci yàlla noonu ba gisal ñëpp ko war a fonk waaye ku nekk war na koo def yéen euh, ngeen amee ci lu am ni ngeen téye ci Masaalikul Jinaan euh, Serigne Bassirou wóolu leen ci yow ak i bi Thiour ak Samba Diaw euh, ñun ñii suñu kàtteer yi borom xam-xam yi fi ne nii kàddu yi ñu ngi koy wàcc ci ci daara yi hmm. di jaare bu baax foofu sax Serigne Saliou Mbacké Xaadimu euh, Awa mi nga xam ne mooy jëmmi Serigne Xaadimu Awa ba tey euh, di siyaare di wax daara bi nga xam ne ñoom it ñu ay kaamil di ko def ak ak doomi Serigne Bara Mbacké ak Cheikh Sidi Moukhtar ñi ak kilifa diin yi di leen ñaanal yàlla ñu ba i ba naal bi ma waxaat kàddu gi ma mi nga xam ne mooy turloo Serigne Bara mu yar ko sëriñ Fallu wóolu ko ci boppam ñu ñàkkam léppam ñu bokk nday bokk bàyyi loolu ku ne xam na ko ci gàttal waaye lii waa dindi xam nañ ko war buy li nga xam nañ xam nañ soxna aw bi soxna soxna amin ci loo dañu ñaar kenn la soxna ma dama kunte diggam ak sëriñ Baara ku ne xam na la ca xew waaye yomb sax ak sëriñ waaye sëriñ Baara Fali ñu gisam dafa dëngmal bi ci du xalifaam sëriñ Moustapha muy sëriñ Galas Amina Galas Xadi waaye nuyu itam Galas Kaltoum mi nga xam ni moo amee lii ak Cheikh Naar Cheikh Naar la di baara muy soxnaam soxna Fatou Sane Diop soxna Dali di leen siyaar baax ci bis boobu muy euh, mooy doon bis sëñ Baara Fali boobu xam njabootu sëñ Baara gépp bisu Cheikh Sidi Buxtaar la bisu buy bind la bisu suñ fallu bisu daara ko dul su bisu ñëpp la moom ñu ngi koy bàyyi xel waaye sëñ bi euh, maa am solo bi nga xam ne ñëpp a koy waajal

ñu euh, ñaanal ko te waxtaane ko nag ndax lu baax ba te waxtaane suñu sax bàkki nawet na fu ngeen fekk lu baax nga siiw safaan ba maa ngi ko li ngeen paree suñu mag bi xanaa di ko waajal te ko waajal waajal goo xam ni euh, genn waaj genn waaj mm-hmm. fii ci dëkk bi mm-hmm. mosu koo kowe mm-hmm. dañuy wax ni uh, kuy niru ndaw ci saayir bu labee daj lu mag mënta daj maga magal gàddu loxoom gone ku ni kuy niru gone kawar gu ñuul bu lambee daj loo xam ne bu mag làmban du ko daj maga gàddu loxoom teg ko ca bisub sëñ Basiru bii benn bis koy wu ko ci dëkk bii te ci fukki at ceren la ko defal maamam ànd ko doomi baayam yi maanaam su la ne sëñ basiru ni sëñ Xaadim oba mo muy caatum bara Baara bu baree man-man amu fit di dox ci dëgg ànd caaki malam, ak rakkam warna mana mën a ne xanaa xamu ni waaju baax bu dee silor doom ju mujj am bu ndeyam baaxee doom ji day rëy siloor mooy mat ba mu tey majjuus gu mat ba mu tey bu ya nitu ku yàlla bu demee ba siloor am ma su baax ba amee doom mu dem caat day mat sëkk loolu feeñ na ci diggante sëñ Xaadim Awa Ba ak sëñ Baara ndax xamu ko kon bu njabootam gii fabee lii Cheikh Sidi Maxtaar di seen bàyyi bu Cheikh Sidi Maxtaar toogee jotaayub sëñ Baara toogee jotaayub sëñ Bamba doomam yii woote lii mu ànd ci ñoom jox leen ci ndigal bis bi ak si ak si fii sëñ baaraay wane boppam ba xam ne Cheikh Sidi Maxtaar ab dayoom kurusam alxuraanam aw fitam ab liggéeyam ak jaamoom nee lu muy daje ci nit jaamu yàlla ak sëñ Bamba njàmbaaru Cheikh Rafal ci liggéey dajale ko yombul Cheikh Sidi Maxtaar mii waajuri sama sama sëriñ sii daa yor jaamu yàlla ak sëriñ Touba. yor njàmbaaru Cheikh Ibra Fall liggéey ba na ni dëkk boo dem ñamante kaamil ba man ca tool ya ma ñamante tool ya duñ man ca kaamil ba Cheikh Sidi Baxtaar daf koo dàmbe kursu junni kaamilu alxuraan doolum xasida di jàng alxuraan di julli ci yonent bi tudd yàlla di sant sëñ Tuubaa sémbu sémbu 30 milliards boo waxee mu lépp a ngi fii loolu ko doonul yonent bi baa nga doon ko doonul ci doon yonent bi doo ko xam doo ko mag doo ko def sëñ Touba doon na yonente bi arfin bi arfin Cheikh Sidi Makhtar moo doonu Serigne Touba ci Alaaji Baara ginnaaw ba Alaaji Baara doonee sëñ Touba ci sëñ Saliou xam nga ko doon yonente bi baa nga doon ko ko doon nooy mel da ngay xam lu kenn xamul ne fu kenn nekkul man lu kenn mënul kon la ni kii moo doon sëñ Bamba bu supp réew ñëpp doon na ko sëñ Touba man ñëpp ëpp la ñëpp ëpp bët ñëpp ëpp xam-xam ñëpp raw ñëpp ku jëri bagaasam noonu ngay demee ñi nga jamonoon teel jumaa ji wente mil yalla neena lepp matna mat na yokk na jumaa yi Touba juróom-ñaari sooroon tàmbali na jàngukaay bi ca Touba sëñ Abdoulaye si mën ko fo lo xamni ni su ko wax kon sëñ Bass mi limu and ak doomi bàyyam yi ak kilifa yi di ko defal sëñ li ñaan suñu borom yalla ko àggalee sagom sëñ bas nag tur bi rek war naa tax nga xam ni du dugg ci lu ñëpp yëgul turandoom sëñ Basiiru daa am ko ko mas a wax ni ko yàlla nga doon xalifa mu ni lu ma koy doyee lu xalifa am am naa ko te du ma fi bàyyi taw yi taw kenn nattal taaw yi xalifa yi natt la kun ko tudde sax day feeñ ci yow xanaa turandoo xam xamoo ni ku waxeeb laajoo salaat du doxu naaj du lakk te lu mu àndal ñu woy ko xam lu ko waral salaatu ala nabi moo tax salat du doxu naaj du lakk ku ma àndal loo man di daj bu ngërëm jotee ya, salaat jël ko wacc la salaatu ala nabi tax kon sëñ bas bu wootee lii sëñ xaadim ñoom fekk si ko ci moustapha ñoom fekk si ko ñoom fekk si ko fi war naa mën a am loo xam ni résultat lay doon man de wóor na ma ni dem naa ci bis bu ne waa na leen publicité ak li li ci seut seigne bamba yi daj ak li len jaral gudet gudet waaw yàlla gën a jëm kaw waaw guleet am ni eh, jamono bi moo toll noonu xam naa suñ def dañu dem léegi ci bisit ci kàttanu yàlla eh, il siwaat ndax yaakaar naa ne sëriñ Abou Madiana Mbacke eh, mu sëriñ Xadim Awa war ci si ñu koy ni la ko ko rabbi xinni xadan min niiraani wala am solo la waaye bis bu am solo la ñu dëgmal kon def naa ne bu jugee publicité tuuti rek euh, dañuy dal dalal Serigne Abou Mbacké euh, di dalal nga a. dinañ ko préparé waaye.

mbokk jullit yi mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci ndigalu xalif général des mourides Serigne Sidil Maxtaar Mbacke yal na fi yàgg te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Souhaïbou Mbacke ibnu Cheikhul Khadim ak njabootu Serigne Souhaïbou comité de pilotage journée culturelle Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ñoo am mbégte di leen yëgal fukkeel bi édition dëppook samedi ci ren nag ñu tuddee ko Serigne édition journée culturelle C'est le Lamine Barambake, Baké. wote bango samedi lay don fan 2015 ci s ku ci bëgg ay Water 77 633 58 63 77 635 01 71 77 323 42 55 wala 77 651 09 44. na fekk bëgg la. bur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara Allah Allah Celle ou la naturel mon rafet lol. fait lol. tàq ñëw Black Velvet ay gam yu leen di jox rafet te anda ak am naturel binga nga Gour ne góor mën Jigen ko jëfandikoo jigéen mën ak Black Velvet bu bi. bébé yi sax am nañ seen gam. dal, pour njaboot gi yépp la day mbaa Black Velvet nak mën ko am DSN téléphone 33 864 76 13 ou 78 156 15 05. Tu veux te faire un max d'amis à travers le monde entier Hello. Bonjour. Ni hao. Salam. Guten Tag. Se faire de nouveaux amis, chatter avec des nanas et des mecs cool de la France. jërëjëf euh, waa Russie ak euh, publicité bu boo am solo boobu xam ngeen ni waxoon naa leen ci kàttanu yàlla léegi nii ci tàmbali Eh, wax ko léegi ci biir ni leen ñoo ngi néggandiku Serigne Abou Madiana Mbacké eh, mu Cheikh eh, sëriñ Khadim Awa Ba Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ci plateau bi di suñu Serigne di boroom xam-xam di kenn ci kii taxawul bis bi ñu bokk Serigne Bara bokk sëriñ Khadim waaye di kenn ci njabootu Serigne Touba gépp waaye ñu nit ñu amaat moom beneen cër ndax moom mooy Serigne Abou Serigne Abou nag ñun soo ko tuddee rek tudd ko sunu cër moo tax euh, nu gën a amaan mbégte waxoon naa leen ku ci dalal euh, Serigne Abou Madiyana Mbacké ci fii rawatina euh, soxla ñaanam ci télévision bi bu baax a baax a baax ci barki turandoom ak way juróom wa ak way juróom yi bu ko defee kon dañuy daal di bokk spectateurs yi ñu ngi toujours ci Serigne Baara Mbacke ak journée culturelle le 9 mai bu Serigne ba Khadim Awa Ba dégg ngeen Serigne si la Baye faal bu diwaanu Masalikul Jinaan léegi kàddoom yu am solo yooyu te dana dellusiwaat waaye bu maam Serigne Fall Babul diina te Serigne bi wóolu ko waaye ñëpp wóolu ko liggéeyam pastéefam sellalam waaye taxawaayam ci kër Sëñ Tuubaa ak njàmbaaram akuk farloom ak cawarteem looloo tax looloo ko may li mu am tey waaye nag ñoo ngi déglu nag suñu sëriñ mu nuyoo ak téléspectateurs yi waaye nag mu daa bëgg mu boole nuyoo ak dugg ci sëriñ Bara Mbàkke sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abou Madiyana Mbàkke waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu aoudu billahi min alcheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبع إحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مبكي جلدي مبكي طالبي ginnaaw سنتي سنبرو سبحانه وتعالى جل جلاله وعز كماله julli ci yonentem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam ak ay sahaba ak ñam ji nga xamé ne si moy suñu yaakaar tay ak Allah muy khadimu rasul ñoo ngi nuyu mbokk julli yépp di nuyu mbokk yi ñi sétane yépp muy ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu tamit serigne sidil muhtar di ko ci nuyo bi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yagal ko fi te yene yi nga xamé ne am ko ci yoonu mamam bi muy yoonu muridullahi suñ borom may ko si lu kawe njottam di ko ñaanal yalla yagal ko fi te musal ko te musal bépp julit ak mboolem kër diine yépp di taftal tamit ci nuyo bi serigne salihou mbàkke bu serigne khalim awba mom mi nga xamee ne si moy suñu kilifa ñun ñëpp di kilifa serigne sering mi nga xamee si bis bi ñu dëdmal di ko moy bisu cheikh mouhamadul amin baara nga xam ne mawar war mawar moo waral plateau bi moo waral waxtaan bi moom mooy suñu kilifa ñu ngi koy jiital ci nuyoo moom Serigne Saliou di ko ñaanal tamit mu yàgg fi loolu te wer di sant tamit suñ buntu ci yoonu xaadimu rasul muy Serigne Xaadim Awa Ba di ko ñaanal tamit yàlla dolli ko leer ak yërmande te barkeel njaboot gi mu fi bàyyi yëpp. fa tabaarakallaahu émission bi xam naa yéen a juree ji ñu ci am. moo waral ñu xaw a am. Mm-hmm. retard. Ah, waaye nag dinañ ko fas yéene dab dabaatal. incha allah ndax bi nga xamé ne si sakku nañ ñu tew fi ci jataay bi pour waxtaane kenn ci nit yalla yi muy cheikh muhammadul amin bara di doomi xaadimu rasul di ñettelu doomu xaadimu rasul nek jëm jo xamé ne kimtaan yi kimtaan la kimtanu kimtan la mo cheikh muhammadul amin bara. ndax bo jàngatee ci ak dundam dundu gi gatt na lool ñeen fukki at ak ñent wala ñeen fukki at ak juroom man nañ ne mom la dundu waaye fa tabaarakallaahu fees na dell ba tax na dañuy potoxlu rek daal di dugg ci benn ci téere yi nga xamee ne taalif na ko benn ci téere yi nga xamee ne taalif na ko mu muy téere bu siiw ñu naan ko mu naweerul bunyaan nga xam ne si bunyaan la xam naa ne mu xaddima bi rek laa indi waaw bismillah bu ko defee mu xaddima bi buñ ko joxee leeral li nga xamee ne sëñ Baara moom la nosee téere bi ak li nga xamee ne si moom la ko moom moom moom la si wax buñ déggee mu xàdd moom rek dinañ xam li téere bi làmboo kon sëñ Cheikh Awa Balla dañuy tàmbulee ci téere bi nga xamee ne moom la Cheikh Mouhamadul Amin Baara taalif ñu naan ko mu Munawirul Bunyaan Muallimul Juhaali wal Umyaan nga xam ne sëriñ Baara boo gisee mu tàmbalee ci xasida bi da see tàmbalee muslu si seytaane wax ne aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi hamdan yafuuqu hamda man hamidahu wa man yahmaduhu min ibadi wax jooju dafa yéeme dafa wax ne maa ngi sant yàlla moom subhanahu wa moom mi nga xamee ne mooy kenn te nguuram gi bokk ko kenn te lu ko neex la si def te du si waxaat kenn maa ngi koy cant ak cant goo xamee ne dafa kawe mboolem cant yi nga xamee ne si wees woon na ko cant goo xam ne dafa kawe mboolem ñi ko cantoon mm-hmm. maa ngi koy cant cant gu kawe kooku loolu boo ko déggee mm-hmm. xam nga dafa wax ne xamda man xamidahu xamidahu mm-hmm. xam nga fi'lu mudaa fi'lu maadi la boo xam ne dafa daaf fi'lu maadi nag buñ ko waxee mooy mboolem ñi nga xam ne cantoon nañ ko setteewu si moom Cheikh Mamadou Amin li tàmbale waaw xam xamda man xamidahu la li tàmbalee ci li suñ borom bind li suñ borom ma a bind ba fii ñu toll képp ku ko santoon rek nee na moom Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed Amine mi ngi sant yàlla cant goo ne kawe na cant googu loolu ak cant la waaw mm-hmm. ne waman yahmaduhu min ibadihi mm-hmm. maa ngi koy cant tamit mboolem cant goo xamee ne dana kawe ñi koy bëgg a cant ak ñi ko cantagul ñëpp mm-hmm. ci sama cant gi fas yéene naa kawe mboolem cant yooyu mhm. min ibaadihi nag la wax setteewul mhm. même anbiyaaw yi sax ak yonent yi ak mursale yooyu sax setteewu leen kon boo waxee boo déggee ah, ku wax rek da ngay xam dayo kii wax mooy kan ndax dafa wax wax joo xamee ne wax ju réy la setteewul ab yonent mhm. setteewul mursal setteewul anbiya kon ñu xam ne moom Cheikh Mouhamadou Amine Baara cant gim cant boromam cant gu kawe la goo xamee ne kawe na mboolem ku ko mas a sant loolu la tàmbalee daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëlmal ci ne wasalaatu wasalaamu ala xayri anbiyaayihi almushafai fi jamii ibadihi maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sëlmal ci moom moom mi nga xamee ne mooy ngën ji yonent mooy ngën ji kuñ solo moom mi nga xamee ne mooy rambu mboolem jaam yëpp moo leen di ramb ci barkeem la suñu borom subhanahu wa taala di ramb mboolem jaam yëpp ndax bu yebal xiyaamee bañ taxawal bis pénc ba suñ borom subhanahu wa taala ba yonent bi di ñaan boromam pour mu ramb jaam yi si barke bi yonent bi sallallahu si la suñ borom di rambe jaam yëpp moo tax suñ sëñ baara jëfandikoo mu shafaa yi kon bi mu waxee bi mu julee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëlmal ci wa dafa wax ne amma baadu daan ne fa yaqulu faqiru ila allahi arraji lganiyu bihi ahmadul amin waaw daan aji wax ji kat mooy ki nga xamee ne ku ku ñàkk la koo xamee ne dafa soxla yër ya dafa yaakaar waaw faxir ilallah ah. dafa ah, aj ñàkk la waaye nag li muy ñàkk lépp hmm. koom-koom bi nga xamee ne moom la soxla si yàlla rek la ko yaakaar yaakaaru ko ci kenn ku dul yàlla hmm. koom-koom li mu soxla di ko sàkku nee na yaakaaru ko ci kenn ku dul yàlla kooku mooy kan Ahmadul Amin daal di dellu loolu wax ji ba léegi tawxiid lay lay xamle ba léegi ndax nee na booy wéer wóorul ci wéerul ci yàlla booy ñaan ñaanal yàlla booy sukkandiku sukkandiku ci yàlla waaw wallaahi waaw dëgg la waaw loolu la moo tax mu ne almultajiu ilayhi attaalibu minhu an laa yaxiifa an alxaqi wala yamila mutawassilan waaw mu ne si suñ borom rek laay wéeru du ma wéeru kenn ci kudul moom te ci moom laay sàkku tamit moom buur bi subhaanahu wa taala ci moom laay sàkku mu won ma dëgg bañ maa jengal tamit bañ maa jengal ci benn côté teg ma ci yoon wi nga xamee ne mooy yoonu dëgg siraatul mustaqim waaw kon mi ngi xamle téere bi li ko tax a jóg mm-hmm. mu daan ne mu mutawassilan ila rabbihil karim bi asmaihil husna mm. nee na téere bi kat mi nga def mi ngi si def tawassul mm. tawassul mooy di jël kerkiraan bi nga xamee ne moom la yéegee jëme ci boromam subhanahu wa taala waaye nag suñ borom subhanahu wa taala dafa am ay tur walillahi asmaul husna fad'u bihi la wax téeréem yooyu nga xam ne si mooy turam yooyu nga xam ne moom lañ koy ñaane te luñ ko si ñaan suñ borom subhanahu wa taala du ko delloo moom la suñ Cheikh Mouhamad Amin di jëfandikoo fii mu ne bi asmaul husna li kay yàkku na minal muhsinin nee na kat tawassul bi muy def mi ngi koy def ci boromam subhanahu wa taala ak ci turam yu kawe yi nga xamee ne mooy asmaullahi alxusna ndax lan ngir mu nekk moom suñu Cheikh Mouhamadou am li kay yàkku na minal muhsinina mu bokk ci ñi nga xamee ne ñooy muhsinina ñu raf xam dañoo sell te rafetal te am jukko yoo xamee ne si kenn làmboo ko mu ne lahumu ziyadata lahumu ziyadatu wal xusna jamian maaha bi asmaai suratul qur'ani al azim mu ne téere bi dafa làmboo ay ay sar yo xamé sar alcorane yi nga xamé mom la alcorane tudd yépp néna sar bu ci nek téré bi tudd mom Cheikh Mamadou Amin tudd nako ko mm-hmm. ba para tamit tudd mm-hmm. ci turi suñu borom yi subhanahu wa taala yamul ci turi suñu borom subhanahu wa taala tudd ci tamit yonent yi yi nga xamé ne ci suñu borom yónni na len ak ñi nga xamé ne ci ñoy borom ciir yépp suñu bara tawasul na seen barke tawasul tamit ci seen daraja ngir suñu borom subhanahu wa taala defal ko li nga xamne mom lay sàkku ak yermane ji nga xamne mom lay sàkku jaabi mu wax ne ma nazman ka durri nazimi wa bi asma'i nabihi zil jahil amim alladhi sawwarahu mom la wax neena mi ngi ko nose wurs bo xamé ne wurs wu sel mom la ko nose ak turi suñu turi suñu borom yi la jël ak sóor ak saare alxuraan yi nos ko nos goo xam ne dafa mel ne caq wurus ci rafet nos nag bu ñu ko waxee mooy woy yu rafet loolu la jublu ci li muy wax daal di yemul foofu mu wax ne نبيه ذي الجاه العميم الذي صوره الله بخلق عظيم والله يرزق من يشاء بغير حساب نانا سوج بروم سبحانه وتعالى كات موي جوخ ورسك تي كوكو نيه te du ko xisaab noonu tamit lay joxe xam-xam si ku ko neex te du jàng xam nga mi ngi xam ne mi ngi xam le moom ndax Cheikh Mouhamadou Amine bu ñu seetloo ak ndawam dafa feebaroon feebar boo xam ne wax nañ ne bi muy am juróom-ñaari at la ko yàlla nat mu feebar feebar boo xam ne bi mu si jógee dégg-déggam dafa wàññiku waxam tamit leeratul mm-hmm. nga xam ne kon ñi maaseel gis nañ ne jàngul kenn xamuñu fu mu jànge waaye fa tabaarakallaahu mm-hmm. li nga xamee ne si taalif na ko ci ay téere gis nañ ne ñim bokkal Serigne Touba kenn ëpp ko silim talif gis nañ ne tamit ni muy jëfandikoo luxa arabiya dafa jéggi dayo ndax ñi dégg arab buñ ñu déggee woy yi nga xam ne sëñ Baara woy na ko da nga dayan xam ne kii jeexal na téere yëpp waaye nag nee na loolu bu mu leen yem ndax kat allahu bi xuluqin azim والله يرزق من يشاء بغير حساب ويعلم من يشاء بدون تعلم وقراءة وقراءة بكتاب الله يلا موي qiraatin كوكو نيه ci lu dul mu jàng kon mm-hmm. loolu dañ ciy dégg ne Cheikh Mouhamadou mu la laduniya bi nga xamee ne moom la suñ borom subhaanahu wa taala di wax ne képp koo xamee ne ragal nga ko dëgg-dëgg ragal moom dina la jox xam-xam boo xamee ne xam-xam la bu jugee sa moom ci lu nga koy jàng si ay téere mm-hmm. kon tarjumaan jooju rek lañ doon indi mm-hmm. di si xamal ne téere bii ñu tim muy euh, mu nawirul bunyaan benn la ci téere yi Cheikh Mouhamadou Amine Baara taalif di si xamle màggug suñ borom subhanahu wa taala ak dayo bi nga xamé ni mom la suñ borom subhanahu wa taala tollu ak alquran karim nga xamné mo nek téré bi gëna mag nga xamné amuñu téré bu ko gëna a mu xam la ci alquran ak mboolem sóora yi sóora sóora yi nga xamé ni wàcc nañ ci alquran ba benn bu ci nek tudd nako ba minal wa nas tambale minal baqara ba ila akhir minal wa nas kon lool dañ ci déggé ne yaatu dënnu xam-xamam ak may yi ko suñ borom subhanahu wa taala laa may loolu nag bu mu ñu yéem ndax suñu borom subhaanahu wa taala ko gi xam da xam ne moom lim dencal jaamam yi amul dayo waaw lim may jaamam yi tamit amul amul dayo te lim yor du jeex hmm. ndax Cheikh Mouhamadul Amin xam nañ ne suñ borom subhaanahu wa taala xaadimu rasul radiyallahu anhu mi ngi ko duppee yonente bi sallallahu alayhi wa hmm. te yonente bi sallallahu alayhi wa Euh, mom la suñ borom tag ci way nakala ala khulqin azim mom mm-hmm. mi nga xamé ne si moga gëna tedd juko ñep mo gëna mag juko ñep mm-hmm. té dañu wax ne nit buñ la tuddé nit da nga jël ci mom ay juko mm-hmm. té sik sàkkuñ ne Cheikh mohammed amin jël na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam juko yu mag mag juko yu leer leer ko tab mayee dinañ jema tuddu ah, yenn si juko yi nga xamé ne si euh, bi nuro nako ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ah, ma ngi ñëw légui fofu sëriñ bi ma ngi ñëw ci juko yu yaronte bi sëriñ ci la dégg nga sëriñ bi sëriñ Abo Madiana euh, fi mu duggee ak fi mu taxawee ci Cheikh Mawal Lamine ci Munawul Bunyaan euh, bi nga xam ni wax na ci ni euh, bay waat bi mujj daane mooy kii xamal ko soob ci dudul mu jàng ci téere waaw ah, bi dooni taallum min kitaabin ana loo dégg ci loolu jàng de foofu ci jàng ci dégg bu dégg boobu waaw day tax xam hmm. boo ko jaamoo yàlla ragale ko rek daal di koy am kon bo bero ragal yalla jaamu ko da ngay xey rek am xam ak am bokul ñi jang ñepp xam waaye ku jamul yalla ragal ko do ko am am am bi ci yalla lay joge ta ragal ko ak jaamu koy maye man nga baña jang ragal yalla jamu suñu borom am xam-xam cheikh moom mujj la bi ngor ga ak xam-xam ba ak nek yim nek won ak i ba séddale loo xam ni man naa ne bariwul ñu ko séddee baa xam ne soxna ma leen a kunta sëñ Bara tuddee ko juróom-ñaari doom kon lii lu ko waral yow rek ko def mu ne damaa teel a ñàkk ndey bokk ak moom weenam te siisuma ndax bi soxna Marème soxna yaa soxna Aminata loolu nelawee mu am juróom-ñaari weer maa nga bu soon ko jox tasante soxna Marème a kunta di jël weer mu boole leen yor. Mhm. ginnaaw bu sëñ Baara génnee ba ak njabootam di ñëw juróom-ñaari loolu tudde soxna Marina Koumba. ñu laaj ko ko mu leen damaa teel ñàkk ndey bokk ak moom went siis ma mhm. moom laa ko fay lii mhm. kon ngorog sëñ Baara ak fonk nga wëllëre ak topp ko ak doole bàyyi ak xam nga lam war a def di ko def ñu ko ci fekk bëriwul lii sëñ bi sëñ boo wax it dafa yenu maanaa ndax koo xam ne ba nga tolloo ci jàng ci nga amee ñàkk dégg lool kàddu ku ñàkk leer xam nga la nga war a jàng ci njàngum sayir doo ko jàng waaye doomi sëñ Tuubaa la kenn xamul nag ndeysaan ndax man li ma foog te gëm ko dañoo àndaale seeni bagage gis nga ñoom ku leen jàppe ay nit ñi nit ñii xamoo leen doo jariñoo sëñ Tuubaa dan ko ni ndax nit nga mu ne man duma nit ñun ko sa doom yi ndax aw nit lanu mu ne aw nit lanu waaye def naa ci ñoom lu nekkul ci nit ku du doomi baam Bamba doomi sëñ Bamba la gën kon ñii ñu meññi ak ñu nu meññi ku ci tegu ci aw yoon doxu ci leen yaa gën ñëpp naa ko ba kileemu kat bu yàlla bindee ngay gileem ngay taxawaalu ba doonub cuuj yàlla tegulu ko ndax bind la ngay gileem say ute nga teg ci suuf liggéeyoo ko tax yéegoo xanaa xamuñ ko doon mbër te liggéeyoo doo doon mbër man maa la ko wax boo doonee ute ko àgg teg ute yi ci suuf te di nelaw foo jëm moo tax boo dem taalibe te bëgg ngërëmul sunu borom bu la yàlla dee wax loo da ngay wax li nga xam ni ku ko dégg day xam ni jëmmi yàlla jaaj sëñ Bamba tax ngay wax bul ma xal yëpp kenn bul jaamu yi ku dul sunu borom bul liggéeyal ku dul sëñ Tuubaa yaa rek moo na ngeen ma ragal jaamu ma ma yërëm leen sëñ Bamba ni ku ma joo <laughs> liggéeyal damaa jënd sëñ Muntaxa xam nga lu wax nan jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ Tuubaa nan liggéeyal sëriñ Tuubaa jaamoo ko yàlla daa di wax ni wax naa lu rëy waaye wax naa ko ba noppi te kat moo raw ñii de gën leen na ragal yàlla gën leen a jege sëñ Touba nan jaamu yàlla liggéeyal ko sa sëriñ Touba nan liggéeyal sëriñ Touba jaamoo ko yàlla. sëñ Mountakha am na lu mu xam ci sëñ bi am na lu mu xam kon sëñ Abo ñu ngi sant ñi ngi sant ci agsi gi nga agsi fii ci nun waaw ndax ab taalibe toogee ci jataay bu mu am yaakaar mm. doon rek moom la ko indil ñoo ngi ñaan sunu borom nga sut sa waajur wa aw fan te ànd ak sëñ bas mi woote bis bi ak maam Cheikh mii nga xam ni bokk na ci ñi gën a farlu ci bis bi maam Cheikh démb la ma woo ni ma noo man di def na nga dem dajeeg sëñ Cheikh aw Balla ak sëñ Abo Madiana li ngeen war a wax kenn du leen ko wax sëñ Baara wax ci yomb na ndax ku ni fàng la joxoñ ko dëgg la day war a maa tax ku ko wërta gis gis ko wala am na ñu mu fekk ñu gis ko ñoo ñaan suñu borom dool yi leeram te taas ñu ci barkeem ci barkeem si Tuubaa nga dellu siwaat léegi te diiwaanu Masalik it mu eh, ngi noonu kon bu am solo boobu Masalikul Jinaan yéen tamit ñu ngi noonu di leen néggandiku di ëttub eh, Serigne bokk ci ëttam waaye lii eh, Serigne Abo pour ma gaaw ndax njëkkanteeg waxtu yu ñëw ci yow sa maam waxoon na bu yàgg ni mënut a ñàkk ndokk bi mu ko feeñalee ci njabootam ni sa maam Serigne Touba waxoon ni sama jumaa ji mënut te ñàkk faw ñu def ko ndokk bi ko Cheikh Moustapha tàmbalee sëriñ fa lu eggale ko. Serigne Abdou Lahad yokk Cheikh Saliou wodd ko Serigne Bara Falilou jaarin wu rafetewee ba Sidi Muxtaar dolli ko ndokk bi nga ko defee waaye bu ñu ko deful woon it pare na fokk ñu def malaayika yi aqlaam wa jafati soxof waaye Serigne Bara dafa waxoon jormatul xajiri wa sirri naali wa suratal israa saani ali suñ borom maa ngi lay ñaan ci barki saar yi nga yëkkatinul sama biir ca kaw mënul woon a ñàkk kon te isa talabtu min ilaahi jalaba toll na ko ci Serigne Touba wali taqulu so la waxta tala bi noonu noonu noonu la ñu mel Serigne son yi bu lañ ko tudde ren magam ji Serigne Abdou ma saa wax ni am naa kersa sama digg ak sama borom ndax lu ma xalaat wala ma ko ñaan yàlla indil ma ko kon daal ujibu daawati daay isa daani waaye fala yasi fala si dibóol yi wali yow mooy bi woo ku la yàlla yàlla woo la nga wuyu ko daal soo ko woo mu wuyu la ndax inna laa laa yaxliful mii'aad sëriñ bi euh, sëriñ baara alxuraan ak it màggal ku yàlla màggal bis bu mel ni taxawal lu ci ne ci njëriñ. lenn ci lu ci nekk ci lenn ci luñ ci bokki téléspectateurs yi mën a déglu jëriñoo. ma ahya. képp indiwaat nga ko ci kaw suuf te dunduk sëñ baaraam na jël tabarkàlla ak Cheikh Souaïb bi wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan euh, mu sëñ baara Mbàkke wallaay sëñ Lamine a ngi waaj waaw ñoom ñëpp ñu ngi waaj waaw kon li ñu na bari na jéggal waay kon xam ko du yomb xam ci moom lu barkat du yomb waaye dañuy sant seen xaalim aw bu baax a baax waaw def na lu rëy de ndax def na dafa def bu rëy rëy gis ni kat kenn ku nekk si ñun amoon na yéene taxawal kenn ku ku bokk si sëriñ baara amoon nga yéene taxawal ci suñu moom ko yàlla dafay taw fi loolu yàlla jox ko muy ab cëram mu taxawal ko waaye nag ci taxawal ko dafa mbokk mbokk sëriñ Tuubaa yëpp ak ñu mbokk sëriñ baara yëpp ñu ànd moom bis bi Mm-hmm. kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Mm-hmm. di ko ñaanal yàlla musal ko ci ndam ndam ba fi nga xam ne loolu lay yéene ci yi wane maamam. Mm-hmm. nekk si suñu doy jokkal. ndax képp Cheikh Mouhamadou Lamine lu bare bari ci ak ñoom. ak lu bare bare ay jëfam lu bare bare bari ci am jàngatam ndax moom dafa bari taalif. bari na taal yoo xam ne da koo taalif te amoon na ay gàllankoor yu si am. waaye mbokk yi ñu ngi koy ñu ngi koy am na liggéey bu rëy bu ñu ci def. Hmm. fas yéene nañ xam naa ne incha allah rabbi ren jii lañ ko bëgg a hmm. fexe amal benn kii boo xamee ne dañuy njàngatu sëñ baara yi mépp lañ ko fay wane. Hmm. ak tamit lim taalif ak li nga xamee ne moom la jàngale yëpp fas yéene nañ ko fa wane. waaye moom day jëmm joo xamee ne euh, dafa neex a waxtaan. Uh-huh. ndax bis bi ñu dëngal di ko waajal. Uh-huh. Euh, xasidaat bii ma tiim bi ñu wax ne bi suuratil اليوم أعرفه منك وبه وبه دي وبه دي القوم yow suñ borom maa lay ñaan ci barke yow suñ borom alkaaf nang ma may tey ji tey ji la nang ma may boole loo xam ne doon naa ko sàkk da nga jubal sama nit ndeysaan da nga jubal da nga jubal sama nit moom nit ku jub da koo ñoroon nit ku nekk siraatu mustaqim da koo ñoroon nit ku jël say mbir ko ci sunna nit tamit communauté dafa koy def. ci te jamono ji dañoo toll xam ne xam-xam dafa mënta ñàkk ci doomu aadama. Mhm. te kon bari na loo xam ne def nañ ko wane nañ ko ci am njàngatan ay journal def nañ ko nga xam ne même ki xamul woon sëñ Bara sax bu gëstoo loola dana xamee ci moom lu bare bare bare. Mhm. kon ginnaaw mi ngi sàkku ne dafa bëgg moom Cheikh Mouhamadou Ba di ñaan te si sàkkuñ ne lépp lu ñaan suñu borom subhanahu wa dina ko ko may. Mhm. mu ne nañ ma. dindil sama nit te nga man Cheikh lépp lu may sàkk nag moo ko defal mhm. kon bis bi xam naa ne bokk na ci bisim ñaanu borom ndeysaan waaw yàlla dogal am ab ab ko ñaanal gudd fan te eh? ko ci am ndox ba mhm. yéen ji moom mën ko eggee fu kawe kawe jottal mhm. Euh, ba tax nag looloo waral ñi nga xam ne dañoo bokk ak moom Serigne Bara bokk ak moom Serigne Xaadim Awa bis bi amuñu sal hmm. lépp pour luñ ci war a def dañ ko si def te tax duñ xaar muy jox ndigal hmm. ndax xam na ni lu jag la bëgg te ñun tamit lu ko jagal rek la ñuy kon loolu lépp day yaakaar naa ne ren da ngeen ko yokk waajtaay wi ndax génn nañ unité africain ndax xam nga doom doomi Sëriñ Tuubaa lañ ko tuddee Sëriñ Sohaybu doomi Sëriñ Baara lañ ko tuddee Sëriñ Basiru waaye salle bi daan def mille cinq cent génn nañ fi jël salle 2500 euh, personnes foo xam ne dañ ko baas defe naa ni loolu yëpp ci xérité ak yokkute yokkute bis bi lay wane yaakaar naa ne. wala cinq yoo bi mhm. nga mhm. lépp am na ci biir rek te deux mille cinq cent places mhm. nga xam ne ñi nga xam ndax salle bi day <laughs> te bari xam ko te dañu ko dana nekk en direct ci télévision yi tamit dana ci LCS mi TFM waaw yooyu dañ ko def en direct incha allah nekk ci a seetaan mm-hmm. kon loolu am liggéey la sant ndax mm-hmm. dafa am benn waay bu ñëw sama kër sama taalibe sax ci communication lay yëngu bi ñu waxtaanee mu ne moom bi ma saytoo bis bi mm. xool euh, wàllu communication yi li sëñ Bass dépensé mën na trente millions loolu la ma wax mm-hmm. bi ñu waxtaanee ak sëñ Bass tamit mu demee dépensé na trente et ci communication bi xam ngeen ne kooku am na yéeneen communication bi rek def nañu 31 millions waaw mais a sëñ Baara waxam ba dikkoon rek waxa ba dikkoon woon wahab lanaa bi aqsiri taa fadlan aziman minka la waxoon may loo xam ne kenn amul la ñaan gaa nangu rek waaw kon ñaan gi ndeysaan même bu laajoon cent millions tamit. Hmm. bu ko bu ko sabab loo rek day jàpp. dana am ndax si jëf hmm, hmm. sa doole. wala sa yéene wala sa xel mu rafet. wala boo mënuloo. waajal ngeen njàngum kaamil bu baax daara yi Serigne Saliou joxe na ci ndigal yaakaar naa waaw waaw faas ngeen daal di nga xam suñu saal xaal moo ko dama seen benn aaya ci catle wu mi ne lay di fa tax a jib bi naafilatan defe naa ka an asaabi an yab'aska rabbuka maqaaman mahmuud daal mel ni ci doon waaj wax dara te te waa Russie ma ma bëggoon nga càppatil ma ji deux minutes aaya yéem añ seen tuuti waaw yéen boo ko demee te xaw a dama xaw a day gumpa nag maa ngi jéggalu waaw ay waaw indi woon ci jikko yi nga xamee ne. Hmm. Cheikh Mouhamadou Amine boo bokk na ko euh, turandoo muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam xam nga aay bi boo gisee ba mu ne ngay fatahajjat bi naafilatan laka. Hmm. asa an yab'asaka rabbuka maqaama mahmuuda. loolu si borom subhaanahu wa taala yonent bi la ko doon wax. moom la ko doon wax kay loolu mooy lan. da koy wax ne ko na nga góorgóorlu ci guddi gi. dundal. Hmm. di si def sa kéemtulaay kàttan. ndax loolu boo koy def. dundal guddi yi mooy di ko naafila di si jàng alquran mm. da nga am ci sa borom ay cër yu kawe kawe mm. ah fi ay bii ay bil quran ah, waaw naam naaw ah, mooy mooy naafila yi rek waaw ah, naafila ak yooyu mm. ñu de mu dellu tamit di ñaaxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te boo waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit yëpp la ko wax ndeysaan waaw waaye nag yii moom daraja yi kenn mënul lu mel na taxawal guddi mm-hmm. ak ni ko julli mm-hmm. amul ci sa borom moo ko def mm-hmm. nee nañ rakk atay ni fi lay li mu xëy mu ne dunya wa fi ah ñaari rakk yu guddi. waaw instant fu sëriñ bi wax ne moo gën adduna ci biiram. waaw te si borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy xamante di julli guddi. ak di jàng alxuraan wax guddi. bu nit ñëpp tëddee. ndax ne tata jaafa junubuhum an al-madaaji' daanaka laa tax la bu nafsu laa ak fiya jidaan na kan nga xam ne kon ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen lal bàyyi lu leen lew doom muy ay jongama hmm. du woon ginnaaw lépp jublu seen borom hmm. di dundal guddi gi ba guddi gi màggat ñu jàpp julli fajar di soog a tëdd hmm. ñooñu la suñu borom subhanahu wa taala di teg naa ñooñu de ëllëg seen danan denc si danan am aw yiw woo xam di denc ci ah, ah. ak set xel ah. na loolu mënuñu ko am kenn gis nga wet yaa mujj tëj fël ma daal jaa fii lay li junóobu naa si na salma walay la nga xam tata jàba junóobu daa mujj wet yaay ndaw la sëñ boo xam nga lu waral loolu lu jafe junni bu ko kenn dee def yàlla day tëb lu junni war a def kenn jóg di ko def pay junni la am sëñ am di xat yi nee na ponkal mu beru di jëf-jëfi mbooloo bu ko yàlla day fay pay mbooloo la koy fay wala mi ngi mel ni moo tax lii nga wax ku am ndimbal ci sëriñ bi soo ko waxee benn junni la koy dégg suñu borom dafa bëgg koy wéetal te bu guddi màggatee bakkan laxasoog jëm loo ko ci lu suñu borom kon ko làqal ci bakkan sànni waa ko jëm ci suñu borom سون بروم دوكاي غاتادو كانو خالي لين ما يعجبون وبلا ام الاي واي اديس بولي ماي سير نك سيرني واه تشوبتو ني جي نافتل وا ما ميغي من وانا عائشه رضي الله عنها الليل حتى اذا فطر قدما فقلت له yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara mhm. qaal bu mhm. an akuna abdan mhm. muttafaqun alayhi xadis bi muttafaqun alayhi bu muslim eh, bu am na xadis bi rek waaw daanaka ñaari xadis ñoo ko gën a bon mooy ñetteelu xadis ci ñi xam xam ñi nga xam ne seen xam-xam waaw xadis bu wér Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha moo sosoo xadis bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan taxaw di julli guddi ba tànk yi neex Mm-hmm. ndeysaan ndëg boobu yëpp day nekk mm. mu wax ko moom sayyidatna Aïcha radiyallahu anha ne ko yaa rasulallah lu tax lan moo tax ngay jëf jëf yi xanaa yow suñ borom subhanahu wa taala jéggal la sa bàkkaar njëkk ni mu yëpp kon nan moo waral coono yi ngay ngay toog mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy ko waxee ko ak ma nekk jàpp sant borom <coughs> insan halimi mi badiya sakkoor halimi badiya sakkooru xam naa suñu abu madiana mbakke eh, day daal di tàggatoo yow yaay tàggu mu tàggatoo tàggatoo bu yaa nag ñaan si la Baye Fall gars yi une minute lañ wax waaw tàggatoo rek ak waa ah, mbokki téléspectateur xanaa di ñaanal Cheikh Sidi Makhtar Mbakke sembam bi moo mhm. ànd ak noonu ba yeggale ko fu koy njortam te sembu yeneen ya, ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall talibim bu mag bi moo ànd ak ñoom ak bépp murit boo xam ne liggéey sëñ Touba daf laa ñor ba am ngërëmul sëñ Touba Cheikh Ibrahima nag lam tàggoo woon dinaa la ko wax dafa waxan ni ab jaam bu dee murit boo amee ngërëmul sëñ Touba nelawi la moo dàq nelawi néegam Cheikh Ibrahima nee na jaam bu dugg ci pax am kër kër amoo ngërëmul sëñ Touba kon nan sàkku ji gërëm moo tax mu ne na ngeen të pax bala ngeen a tabax rikk waaye doom te leen pax bala ngeen a tabax ñu ko faa luy te sa pax mu ne ji murit bu amul ngërëmul sëñ Bàmba tëwagoo sa bàmmeel daa wax bàmmeel néeg bu bees la lal bu bees dara bu bees ngeeganaay lu bees càngaay lu bees boo fa tëddee loo matt ba ngay dem nga ko yóbbu jërëjëf it nuyu ñeenti nit ñoo xam ni bi may ñëw fii dañ maa yëg hmm. bis bi da leen a ñor hmm. taalibab sëñ Fallou hmm. soxna Fatou Mbacke Niass ca asalem 5 di jigen jo xamni day jëf jëfi góor soxna Fatou jeng soxna mbaye ngi Sylla soxna fat sar jërëjëf maa ngi nuyu ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh itam sa waje nuyu mako ak sa rak yu bax yi nga andal ci liggéey bu tedd bi xana mu ñu ci Serigne Abou yalla Mbacké rek mu daal di tàggu tàggu ko bu and ñaan ñaanal rew mi ñaanal kër gi nak ñaan ci bis bi itam eh, ñaan du doy waye jëf yu bax moom ku koy def yaa ngi ñaanal sa bopp Serigne bi kaddu ba nga nga ak téléspectateurs yi bu bis ba ak jàmm jërëjëf Touba gépp waaw njaboot yi nga xamee ne moom la ko wallaay ndeysaan ak woy beneen yoon rek ñu taay ñu dalal la beneen yoon muy le neuf bi. le neuf bi waaw mm. sëriñ maam Cheikh Mbacke boo koy jiite. Mm. ak yeneen borom xam-xam yu yaatu ñoo koy def. kon mm. ñu ngi ciy woo ñëpp. di ñaan suñu borom subhanahu wa taala. jërëjëf sëñ Abou Mbacke waxoon naa leen ci kàttanu yàlla itam ñu ngi dëgmal bisu Serigne Bara Mbacke Falilou le 15 ci kàttanu yàlla fële ci àll yi ci Touba dëkku Serigne Touba Khadim Rasoul Ba ñu ngi àndaat di la ziar bu baax a baax di la ñaanal yàlla saxal la ci liggéey boobu sala jàppale la Abdoul Aziz Serigne Djili mu Serigne Modou Boussa Dieng si la Baye Fall ñu koy ziar waaye ñu ñu di ko bokk ziar rek xam ngeen ni euh, incha allah le 9 la ñu ànd ak yéen en direct ak yeneen télévision yi ci réew mi yëpp su boobaa sëñ Abou Madiana Mbacke mii li mu seex nii bëggoon ko yàbbil nit ñi incha allah maa ngi leen di jox rendez-vous ngeen déglu ko ci kattanu yàlla ci seen euh, la scène sénégalaise le 9 euh, à partir de 9 heures rek ci kattanu yàlla dina nekk en direct moog Serigne Maam Seex ak borom xam-xam yu bari pour que ñu ñaan ko mu indil ñu ci lii ndax loolu liggéeyul Serigne bi la mu nekkoon mbokk taalib bi Oustaz Cheikh Awa Balla Seck seen émission Pencum l'Islam dalaloon Serigne سرين خادم أوبا سرين سيل بايفال بوديوان مسالي كل دينان ونكون وقتان سرين بارمبكة وقتا يزور نكترير بو سرين بسي سرين بارمبكة بي سرين بسي رتحول أنك بوكم يب بل نفت يلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سن ميان الحمد لله الله الله الله